waruloo bokk ci ñi nga xam ne euh, dañuy d'accord ñu dugal armée ci mbiru politique je fais référence au communiqué euh, bi waa coalition yi génn barki démb euh, naan ils se sont avec des généraux de l'armée et à cause de ça dinañu sursoir ci seen marche bi ñu prévoir woon le 3 yow loolu waroo see d'accord ni ma la déggee ngay waxee non non non je pense que musoo dégg Yewwi Askan Wi di dugal wala sax les hommes politiques armés ci ay euh, le champ politique peut-être que am na benn contexte bu am y a un contexte <coughs> boo xam ni de manifestation qui était prévue aujourd'hui à la veille de la célébration donc de notre fête ñoom ñu def un peu communiqué <coughs> pour expliquer pourquoi ñu surseoir à ça kooku je pense que euh, c'est pas impliquer l'armée en entachant le devoir de loyauté d'officiers généraux non du devoir de xam nga yow yaa bul bul yéegal affaire bi. ah si defal ndànk ah, yeegul ils doivent loyauté. xoolal et déférence au chef suprême des armées. affaire bi yeggul niveau boobu parce que c'est pas une correspondance formelle wala dara te contexte bi ñoom peut-être ñi ko ñi nga xam ni moo bind communiqué bi su ñëwee boo ko laajee mën na la expliquer le contexte mais franchement c'est pas pour aller plus loin que demain y a une fête il faut tout faire pour éviter que la fête soit c'est tout après il y a personne qui a impliqué qui que ce soit surtout les forces de défense et de sécurité dans quelque contexte politique kooku moom je pense que suñ koy reprocher c'est peut-être euh, le général Moussa Fall chef de, de, qui est le euh, quand même patron de la gendarmerie moom la ñuy dégg ci ay muy muy tenir des propos yoo xamante ni ce n'est ça ne sied absolument pas à sa fonction. mais quels propos il a tenu. dire que les forces de défense et de sécurité sont bien armées. pour veiller sur les populations à l'occasion d'une rencontre avec des femmes de gendarmes. fu ñu la jaarloo fa ngay jaar fu ñu la jaarloo fa ngay jaar bu ñu nee la jaaral fii jaaroo fi dinañ dal sa kaw yooyu c'est pas responsable. il n'avait pas à parler de situation spécifique il a beaucoup dans la gis nga Sénégal plaque tournante drogue chaque semaine nga dégg ramassé nañ fi quantité de drogue chaque semaine nga dégg des milliards en faux je pense que doole bi ko armée bi jox tey jii est-ce que avec le président de la République a parlé tout à l'heure de la montée en puissance de l'équipement des forces de défense sécurité mais est-ce que le Sénégal Dakar est devenu plus sûr est-ce que yow mën nga jóge fii nga def jogging ci ci VDN bi ñeme woo ko donc il y a une montée en puissance c'est vrai de la gendarmerie mais moom dans un esprit de revanche sur ce qui s'est passé en 2021 kooku xam nañ ko donc et cette fête ne doit pas servir à exhiber les nouvelles forces des gens de la gendarmerie ou de la police pour dire aux gens que ni j'ai les forces de répression avec moi ce n'est pas le but bu dee loolu la ci jublu cette montée en puissance doit nous permettre plusieurs choses d'avoir là euh, Sénégal plaque tourmente drogue comment on fait pour que ça cesse Sénégal plaque tournante trafic de billets gis nga léegi les montants astronomiques impli impliquant des députés euh, de la majorité wala le fils de ministre euh, euh, conseiller des sommes astronomiques qui peuvent détruire notre économie est-ce que loolu dafa wàññeeku depuis qu'il a eu une montée en puissance des équipements ou pas pourquoi à chaque fois à la veille de de de manifestations politiques Dakar est quadrillé du am mukk y' a pas de de de y' a pas d' agression y' a rien tout se passe mais une fois que le, le, la séquence politique est passée Dakar devient la ville la moins sûre quasiment au monde benn kenn ñemewu la def à partir d'une certaine heure son jogging sur la VDN ñemewoo ko waxuma nga res téléphone donc il y a une un problème avec ça je pense qu'on ne doit pas jouer avec ces histoires d'équipement ñun ñëpp on est derrière notre